te it sëriñ bi yaakaar naa ni ba muy dem ñaar réew xalimaat daal du daal du kenn ku ko rogal sëriñ bi yaakaar naa woon na jël loxoom di xeex ak ndax mu ngay wax ca nëb naan ngàññante ba mu lay yóbbu ci xeex moo bokk bokk na ci jikko yi gën a bon est-ce que kon moom du ko jikkoo waaw xam nga nee na jàpp jàpp na ba sell ab maram ñoo laal ma fasaan jàpp mara bi ñëw laal mu am aal. nee na bu doon le yu fenn too mu kàll. mu kàll ko waaye na koo far baal xam nga loolu daal leer. wallaay lu gën a lu le a métti loolu. jeex na kon kooku xamu ne moos bu ñu taxawee naan ma nga doon le ak loxo ka ko dégg le dara ci Sëñ Tuubaa moom le loo dem. netti ko keneen ka xamul dara ci Sëñ Tuubaa le netti keneen léegi ñu naan lawal foofa Bàmba joo xam ne le ak. loolu moo tax ma le la jar nañuy waxtaanee tombuk le Tuubaa dëgg-dëgg. te bañ le waxtaanee rek folklore yi nga xam ne dañuy taxaw ci baas le di di sëxaar bi le nga yaakaar majoré Fall ak sëriñ bi bu ñu ñëwaatoon jamono ñoom bu ñu xaw a waaw wala ñu xaw a réer di mel ne ku réer ca sëñ Tuubaa gi fi bàyyi wala majoré Fall ak benn fekkaat. day mel ne day. yàlla ak yàlla nga tukki lu yàgg ñëwaat sa kër. waaw gis mu soppiku soppiku xam ñu ne naan est-ce que man fii laa dëkk. damaa dugg ca bayaas bi ñu daw ba yàgg ki maa doon ne ma est-ce que xam na ne ku def vingt ans état yi. Mm-hmm. bu ñëwoon Sénégal tey jii dana réer dana am fii du Sénégal. Mm-hmm. bu boobaa loolaa leen di daal parce que lañ fi bàyyi woon. Hmm. ak li fi nekk. Hmm. dafa mel ne yàlla ba ci ba ci Baye Fall gi ndax Baye Fall moom kenn du ko diingal waaye Baye Fall nag laa wax. Hmm. Baye Fall na ne Baye waaye moom daa laa wax. waaw Baye boo xam ne doo yóbbu doo yóbbu ndox. yow boo sëñ boo gisee ren déwén ko koy gisaat. fu ñu fekk takk njara ba fees dell. julliwoo yoroo kurus di wérd sa yoon nekku ci diini sa yoon nekku ci lislaam yow daal li nga gëm moom mooy bàyyi faa laaji maam li ngay dundee mooy reste yi nga def ak yi nga tàkk ak faal ji ngay wuyoo xam nga moom xaw waaw muy dañ ni woon maam Cheikh Fall dafa def ay njëg mooy maanaam ne gis na mm-hmm. rasta yi am ci bopp mm-hmm. waaye man gisuma kenn ci njabootam man gisuma laa wax doo ko rawatina jamono ji mm-hmm. bërki gis naa benn vidéo nga xam ni am na ñuy sàmfaat suuf li si ëpp ci njaboot gi ñi ci gën ràññeeku nekk ci kaw benn étage nii tiimee leen bàyyi xel hmm. waaye gisuma ci kenn ku ñañ day amu maanaam njañ loolu maanaam njañ loolu xam nga njañ hmm. mooy mag ñi daan a seen karaw moomu hmm. buñ xëyee buñ sangoo ba ko nii mu jàll ñu jël ko muur ba sëq ba gudd ñu naan lii jekk njañ neexiree daa koy wax a nga ko resta koy resta bàyyi mu mel ne maanaam ñooñu nga xam ne jama jamaay gay a ñu doon xam lu doon ñooñu foofu lañ dëkk Mm. waaye Serap Fall njañu doon waaye nag bàyyi woon na karaw. Mm. ba mu dem ba def ay donju. Mm. donju yaa bari moo tax ñu jàpp ko ay res. ak am Serap Fall sew. dégg ñu naan sax dafa dafa jàpp ni moom bu ko defee mi ci boppam te moom warul ne ci lu dul sëriñ bi. gis nga ko xam nga loolu lu xisa bu leer naa ñu ci. ñu ni ñu ni sax moom Serap Fall daan ci àll bi ko. am dégg ku dugg ci tànk bi. mu dem ba koy dindi. di wax man sëriñ bi man na dem bëgg a dof wala sëriñ bi yónni ma. may bàyyi yónnanteem di nekk ci sama bopp. dina nekk ci dëgg di ko dindi. loola xam nga amut loola léegi nag loola mënut mënut am. Mm-hmm. parce que jamono tamit dafa dem ba tollu foo xam ne dafa dafa dafa war a ngi ko. Mm-hmm. dafa war a ngi ko. Mm-hmm. ndax Iblis dama xool suñu borom rek maanaam daal na la gën ne na nga ma may. ëllëg ma ci mën a xëcc yóbbuwaale la. ma def ko suñu borom na ko defal. ba mu ko dàqee. loolu nag fi ne dafa feeñ. Hmm. ah dana dana jël fu ne nag iblis fu ne lay jël. Hmm. Hmm, fi ne léeg-léeg tuddoo murit koo xam ne. téléphone am euh, maanaam euh, boo ko ubbee. photo écran bi ci kaw. Sëñ Tuubaa lay doon comme ni nga def. waaw waaw boo duggee ci biir boo mu tudd jaay ba maraax téléphone bi. lu nekk ngi ci biir téléphone ay addis ngi ci lépp a ngi ci. waaye nag filmaa nga ca boo xam ne. wala yasubil laa. kooku xam ne maanaam dendale la bu soree. <laughs> kooku yëgut la mag ñëwee ko. koo ko yëgut la mag ñee yëgoon waaw ndax nee mag ñi ñi sëñ Tuubaa ya wala ñi mu yàgg ku nu yàgg hmm. boo daan gis jigéen da ngay sëgg ba diiru lan tàmbali émission ba léegi mu leer la kii romb na nga soo gis yi wallaay gis ni jigéen ñi nañ leen doon sëñ Daam Abdourahmane Lo dana wut aw sàkket bu hmm. uh, fat sax jaare la ko ni jigéen ñi côté ba la ñuy toog waaye dañuy wan ginnaaw sàkket góor ñi jàng ko dañuy toog ne waaye dañuy wan ginnaaw sàkket nanguñ sax wan kanam sàkket Serigne Saliou Mbacké mi fi mujj ma ko xoolal loolu léegi loolu amatul fi na bu ñu wootee ca bis mm. boo xam ne bisu journée culturelle lañ koy xuma dañu waxtaan si tubaab nangam. Mm. daanaka jigéen ñi góor ñi boo mu tudd léeg-léeg doy na waar. da koy da koy da koy gis fu ne. ci ci programme murid yu bëree bëri li ngay wax rek mooy li ma la naan mag ñi suñ tubaab yar yar ku mm-hmm. gis nga soxna Fatou Diagne ñi taawu sëriñ. nee na sëriñ bi ku mu daan seexal da naan jamal mu dolli la. jamal mm-hmm. ca. soxna Fatou Diagne mu dolli mu dolli. Mm-hmm. ngir fees dell ak taal ni bi sëriñ bi jabootu sëriñ buñ daan ñëw di ko moom buñ demee day tànk day tibb suuf fan toogoon def ko ci yére bi ba noppi taxaw mu leer ni que ni ñii war nañu àgg bu soobee wàññeeku. waaw waaw soxna May Ndaka daan moom nga baal na rek. Mm-hmm. Euh, yar na kenn ku ñuy wax si Abdoulaye Xadim Sarr. Mm-hmm. moo moo nekk daal. Mm-hmm. moom daanaka boo demee màggale yëpp am na Proxaan Kër am na fa Touba am na Xurbaake moom fi góor ñi jigéen ñi di nekk. day am mi bu do sen diggante. ma góor waay. bu nu toogee jigéen ñi dañuy ñëw tek ko noonu ci buntu bi. du nga seetale góor ñi de. góor ñi ñëw. jigéen bu ñu tegee dem góor ñi ñëw jël ndem ñom ñoom seetale seen bopp. ci palaat palaat sax duñ leen palaat hmm ngir rek li ma lay wax di la ñi sëñ tuba ya ko nu ya ko nu ya na ngay dal wallahi wallaahi. looloo hmm waye day. soxna bay xam na lo lo wax ci soxna bay soxna May Mbàkke. ibnu si Ahmadu ba mu ne ca daara ji jàng mm-hmm. ba mu sëñ Tuubaa a taw alxuraan jigéen ñaara ko mm-hmm. maanaam sëriñ bi su fa masaana ñëw mm-hmm. bay dox jéego yi muy dox day bàyyi ba ñëpp dem mu ay bool di ko ci këpp dana fexe ba këpp ci daal ñeenti tànk bàyyi ko fa bu bu bu set mu ñëw kuppi tànk bi xool tëjaat dem kuppi bee xool tëjaat daal dem xool bi sedd bala xol bi tuub ngir sëñ Tuubaa bi jaar fii moom leer na ko kii sëñ Tuubaa bi jaar looloo ko neex ba da koy këpp bool. Hmm. lu mu yàgg yàgg fa la koy téye di ko xool ba gis na ràpp na. Hmm. Hmm. xam na ne mooy waaye bëgg na ko bëgg boo xam ne. day ko xool. cofeel boobu su ko taalibe bi amoon nga xam ne maanaam dari murid rek gëm sëñ Tuubaa. boo am cofeel bu toll noonu. dana jóg noonu la demee. léegi kon nga yaakaar du ko jar ñu te jàngale sëñ Tuubaa ak jaamu yàlla. jàngale sëñ Tuubaa alxuraan. jàngale sëñ Tuubaa ak yeneen bi jàngale seigne touba ak xam-xam. Mm, ak xam-xam. Mm. ngir Cheikh Mamadou Moussa Al Karim dal na wax naan. Mm. ah sëñ touba mu jur. sikkuwut. Ceerno Ibra Faati ma jàngal sikkuwut. waaye jub boobu la. est-ce que ah dégg nga wax manam maanaam djubla jub mom fete moom te man kenn Ibra Faty moom moo tudd rek. Hmm. ndax man nag dama faa bokk moo tax ma koy insiste. waaw waaye jëmm jooju rek jëmm jooju boo xoolee ci jëmm jooju rek war a xam ne Sëñ Tuubaa ku ñuy foyee. Hmm. nañ koy gëmee bokkut ak nii muy doxee. Hmm. na Sëñ Tuubaa yow dégg li ñu nekk li ci bi Sëñ Tuubaa demee bàyyee ko jaar bi da ngaa war a xam ne nag maam Cerno. maanaam mbindee bii Sëñ Tuubaa dénkoon maam Cerno. ñu ngi ci loxo maam Cerno ba tey ndax dana ko dénk naa la jaar bi. tali bi waaye ba tey dégg fu mu ne ko jëlaat naa tali bi ba mu dañ ko xamal ne si Mourou Awa Balla mbaa Cheikh Awa Balla maa leen hmm. a jël doomi Sëñ Tuubaa ji nan la jël leen ñoom ñaar ñëpp te bàyyi fi doomi Sëñ Tuubaa ji. xalaatu moom mu jox ma dara. Hmm. dellu si ma naan kon am lu ci xew. Hmm. gëmoon na Sëñ Tuubaa bi nga xam ne am na xis xew ñu ne sëñ bi kat kii na. ndax wax fa mu demoon dafa doy waar. ko a jaar léegi nga tubaab yi yóbbee ba nga yóbboo ba ca kanam. am na xibaar bu ñëw. ñu ne sëñ bi kat far na far na wàcc. maam Thierno bu dégg ne ko rek ndeysaan bàjj bi kanam gi xii mm. xam naa bëri taax mm. ndax am na xool naqari mu xaw a beru waaye yaayam ja mm. soxna Fatou Issa moo ko xool na ko ak Thierno lu xew mu ne ko ah doy ko mbaa li may dégg ni ñu ko wax man ko yaakaar ni baax dëgg day dëgg xoolal ngëm googu ci soxna Fatou Issa ba du dëgg de loolu dara mu ci si yow da xamoo sa mag ji baax ci ko moo ne ma woon maa lay taxaw te lu mu wax ma te maa ngi fi ba léegi <laughs> ah xoolal kii ngëm wallaahi da nga yow bi tey jamono jooju nga xam ne boo ma saana nit gaañu sax ab leetar ngay bind ko pour aw fas hmm. dox juróom fukki kilomètre pour wax hmm. hmm. ne la na nga ne man gawuma ko ndax lan moo xam loolu rek mooy am te loolu amuñ ci am googu nga mamut moom lay di ma téye kaasu café mu leer ni ma kaasu café laa téye li ma sëñ tubaab te gisaguma ko laa gën a gëm loolu xam nga loolu googu ngëm na kanam sëñ bi loolu képp ku gëmee noonu na ba tey xëy na sax yomb na man ñooñu roy leen te du ma gëm roy nag munoo mel gëm a hmm. man lool alxuraan. Hmm. ko a roy nag munumaa mel ne moom. Hmm. pourquoi fexe koo dab. même boo ko dabul da nga dem ba jege ko loolu. da nga raw noonu la demee. la tax xibaar boobee feeñoon nag soxna sëñ ba tiit. moo yee. sa njóol. suñ tubaab narul kenn. wallaahi du kenn loolu bëgg naa ñu kenn du ndax nag tubaab bi. Hmm. ah dafa am fu mu jaar ak gars yi ku ne xam ne Cheikh Ahmadou Foutiyou Tall moo feeñal leeru suñ tubaab premier. wér na ba mu seetee sëñ Mor Lam Sëriñ na ko ñëw naa fi yoon. Hmm. di topp leer fii la yem. Hmm. ñetteel yoon mooy fii la yemaat. Ah. naa leer daa ngi fi. ne tekk ndeysaan ba yàgg mu xool ko na ko du yow de man sëñ Mor Lam Sëriñ du yow. ne gi soxna jaare na ko ci kii lay jógee. génne biire na ko bu ñëwee fasal akada wala yu yàlla pii li ñu ko rayal ci lislaam moom képp lañ ko rayal wallaahi wér li mu daj ci moom képp moo ko daj akada te ba sëñ bi demee ba doon mat la mu mat hmm. ñëw na ci way juróom la leer na nga xam ne kon sëñ tubaab du nit fañ ko yóbbuwoon muy tubaab ba àndoon ak moom am hmm. nañu la doon gën a lekk jóg ca Kajoor hmm. mu jaar ci sëñ tubaab tàggu ko mu ne ko bàyyi ma defal la lu ko gën mu ne ko ëllëg na naan damaa daw mu ne kon bul kañu ba mu dóoree ñu bari daal ko dóor dame samba hmm. hmm. hmm. euh, yaay fall almaañ buuka samori ture jëri jor ndeela sëri ci jéey alburi biram benn njéeme ñëpp ñepp bee leen faat te ñoo ay arab ne lañ yoroon ndax ki ñaan sa saaxawar faat ma nga xam ne moom sénégal ndax dafa jur juróomi lingeer kon samba ay sa tax faat ma xurëja ak joor ñooñu noonu nga ma la limal ñoo jur sénégal ñoo jur wa jaasan ñoo jur wa wa wa touba ndax sa saaxawar faat ma dafa don ko xam buur la woon. yële fanweeri province ak ñett daanaka. loolu buur bu fort. ma raw ba Macky Sall nii. am gan lañ wax gan nga gan su ko jógee Jolof ñëw fanaan fa ba sëñ bi dugg nañu fekk gan bi faatu. mu ne ko def bii ñu ne ko yàlla. mu ne teg ba yàgg mu ne yàlla daal comme que moo mën a sama arme bii. ñëw rey sama gan gii. Hmm. man damay wëri yàlla. dem ci sa dem ca Matar Ndourbi ma sañcoon ko. jébal ko boppam hmm. ne ko damaa bëgg a eh, topp ci yow mu téye ko juróom-ñaareel jàngal ko alxuraan ne ko dellu dëkk boo ma sa yif nga jaar fa yàlla waane ma fa indil ma ngir bëgg a xool ba xam tuub gi wér na mu dëkk yam doon yërif fa lay dem na salaamaaleykum ndonga laa yàlla mu ne eh kii de nekk tuubam gi dëgg di sarax mu dajale yàlla ni ñoom jox sa jox ko mataan mu ñoom ñoo bokk maam ñoom ñaar la keroog la nag tuub gi nangu na sëlam ko daal na demal sant bu dëkk tudd ko silmaxa fene cilmaxa mbaakol kii waaw silmaxa la silmaxa mooy gumba mu ne ko foosante na ko tudde silmax mooy gumba naa ci la ma nekkoon xam nga lan nekkoon du yàlla du du ak góor loolu foo moo tax tuuba mbarkeel ba sëñ loolu yaa ngi woon ci euh, silmaxa waaw waaw saa xew faat kooku ma la limal buur la woon kenn loolu tey mooy maamel buri beneen benn ñebe mooy maamel ak joor waaye ñun ñëpp tubaab bi faagagal na leen. Hmm. kon xam na ne jël joor ndee la. Hmm. daf doon jàpp jaam di ko jaay. tubaab bi woolu ko tere ko ko mu lànk ba mu ko defaatee da koo woolu ngir faat ko. Hmm. te buur la woon ponkal la woon. doon ko foor. ba mu ñëwee yëg ci escalier dana tubaab bi dana bu ñëwee bu toogee ci siis bi na ngeen teq siis mu daal. ngeen yeewoo ko ma rendi ko mooy commandant Satan. ngay dégg ba mu ñëwee toog dañ ko takkee nag xaritam yi mu àndal ñu naan ko sëriñ ji mm-hmm. moo dégg kër kër ji nag doon borom doole muy yéeg escalier mm-hmm. fekk ñu koy takk mu bocc paaka moom moo ray commandant xam nga dañ meen dégg ñu naan jëri mm-hmm. moo ray commandant satan déedéet sëriñ ji euh, mu daanu mu bocc ko garde ñu tiit ñoom jaar ci balcon bi daanu mu tekki jëri yoon leera dafa jóg ca njàmbaar ba mu romb bul daw ci escalier yi bari benn par def ko benn benn bala ñu ne daw waaye nag suñu xaar suñu cuun dañoo wax ne rey tubaab yomb na hmm. waaye fekk njaal ma mooy def ca lañ ko toppe nag hmm. ak seeni feral hmm. sëri ci jiir ñu dem ba ci mbagg mu ji ñu topp jiir ba jub mu xam ne buñ ko reyee dana ñaaw mu mu rey boppam moo tax ñu jël bàmmeel ba séddale ko bopp ba ñu yóbbu ko Cees xol ba ñu yóbbu ko tugal mbool yaa ma ñu bàyyi fa ca des xoolal ñu tubaab bi def jëmu jooju te lépp luñ def ñooñu jéemal nañ ko suñu tubaab sottiwul sottiwul loo xalaat gasum yeer sax def nañ ko dugal ko ci sottiwul Hmm. ba mu wàññi ko waa dil si waat ci waaxu masa si ci hmm, koor hmm. wax nañ ne bi bi oto bata bi gaaree maam si am borom daal salaam moo njëkk yi lu leer la dugg fekk sëñ si waaw Moussa nga dégg ko mu ni yan yan yan fut bi ak ak lam gaay ak lam ko moo moo ko fab raw gaay waaw ni nga ñëwee tawatul baraay baraay xam nga baraay mooy métti bi parce que bi dégg naa mas naa taxaw ba yàgg am lu jóge asamaan ñëw ni ko cekkit matt na la jaan dellu mu xaw ba ñu ne sëñ bi moom fi na wàcc moom bay moom bay woo ñu daal koy yóbbu mu naka tooy xëpp ci la xim bi quoi balaa la woon bu doon wàcc ci jaan moom moom moom mu yàgg mu dégg sëriñ Saliou def na fi bataay wér na wax nañ ne maam seen ndax njëkk hmm. ñëw gis sëñ bi ci melokaan bu doy waar ndax neewoon na man du ma dis kenn dara ku dul yàlla ya, ya. mooy ku ongle wala nangam hmm. mën na leen koo ñaan pour dagg weer hmm. waaye bu waa day mel ne bëggul dara ci kenn moo tax wee doy waar lool karaw ga sëq loolu sëñ bi mel melokaan moo xam ne ndax yow mii ku ne boon xel comme bala fa te ba xel comme di xel comme laa wax lu mat juróom benn weer képp te moo benn jumtukaay boo ñëwee fi mu dinañu wax kii lu ko dal Mmh. moom juróom-ñaari bi tegal mmh. te musta lu ñu fi metti metti du ko tee jaam yàlla mmh. du ko tee tee tagg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam du la la ko war te ñu mu ànd ak bëggalu leen dara loolu metti mënu ko wees maam si ànd ca mag ga wàccaat bato ba pour ay jumtukaay ñoo dagg weye defar karaw ga yéeg ba sëñ bi du ko àq sax mu daal di wàcce genn gaal ñaari gaal ba ko ñettee sëñ bi tëll génn man tëllam jooju mu la na nag jamono looloo taal jamono ba tey jii jam rek ay am Sénégal bari sëñ Tuubaa waaye man sera fal te mat ga bëgg sëñ Tuubaa maanaam sëñ bi defee ñaari eskile ñett moom moo daw gàttal ko waaye daf ko def ko yëkkati lay sant man sera fal ko wàcce ba toog ci la geesu na sëñ maam Seera yow demal jara Salaam maa ngi mooy gan bi nga dégg jaar nag Kajoor jaar na su dëkk bi ñii ñu kër Matar Bint ñoo ñu dañoo bokk ci ci Matar ci Matar Bint dafa ñëw toog na sëriñ mu faal ab sax mun na ko bàkki mun ci tukki bi. ñëw di nenn ko samay mbokk rek. nee naa fi jaar. waaye nag raw nañ ndax Sëñ Tuubaa nee leen samay mbokk ñëw. sama rakk ci alxuraan. mooy maam Matar Fatab sa. mun na ko indil kàllu muy dellu ñu teg ci poojam sëñ bi ci bisimilah baasin bi maanaam. ne maam maam raw na tax man ba ma sama yaay ñëw ci moom yëkkati ma man uufal maam Matar. na ko kii kat damaa jur ay doomi góor yàlla ya weddi leen. Hmm ki nak mom mi ngi nii ñëw na goor la waye hmm. ci seigne Matar ki rek ba ñu toog mu dana ne aminta loy joy da nga defal day dem mu nu ko man day faal nga bëgg nga ñaanal ma ci rek mu nu ko man seigne touba Tuubaa ma taal baax baa ma den ko seigne touba man mi day loolu na wa waaw na nag daa doy kon noonu gëna ma ngi ci seigne touba ki wa la ki wa la waye waaye mu jooju li mu tej ba dilu ci dem daru salam ne wax nañ na maam ci Anta ay bi ci maylus la dagg di ko laal fa seigne bay joge ba ci biir neeg waye waaye la wodé sàkke di wër kër gi yëpp piisi may dus dafa amoon xaalis. maam hmm. sant kenn moom. daan na nag ku njëkk na sëñ Tuubaa ak si na ma jox la ñaari fas naa dugg. est-ce que ba ñu séenee sëñ bi na góor gu ne bëri na sëñ na. Hmm. waaye ba ñu toogee xam naa daa sant Diop. Hmm. ba waxtaan a neex maam maam Seydou xam dara yi mi rey la ko maa ko xam naa ko de waaye jëmm jooju li mu jëf ba agsi fii mu agsi tey jii hmm. ku fa jaaroon rek des na fa hmm. kon boo ko jar naa xam noo koy toppee moo tax ma waxoon léegi ci wax ne hmm. ko bi de waaye wërtatee ko waaw xasaay jàngi ay waxam boo ko jàngee wax yàlla lii xasaay di wax sëñ Tuubaa boo ko saytoo xam kan mooy sëñ Tuubaa topp ko na ko war a toppee mu mel ne que bi ñu ngi fàttali ba léegi ñoo ngi seen biir émission Baol Mouride bi ba léegi fii ah si rajo taalibe bi bu fekkee ci rajo bi ngeen fekkee ci chaîne YouTube la Talibé TV ñu ngi waaj a yegg nag ci cappaandaw mm-hmm. léegi nag sëriñ bi bi mu jógee ci tukki bi mm-hmm. mu mel ne que dafa wax ni yàlla kat mm-hmm. ah man jéggal naa sama ñoom ñëpp ah, waaw waxaat ni ba muy waajal pour ñëw dafa wax benn bayit ni ijaal rujuwaay ilaa qawmi saadatana wa takfina yowma jami raxamni yàlla na def dellum muy mucc ci Sénégal géej jóge bu amaat beneen ñu ne tubaab bi dafa ñëwoon ni ko xëy na foofu sax la duggee laajaale leen laaj di bëgg laaj. nii dafa ñëw ni ko ña wax na ña ñooy sa ñoñ. mu ni képp ku yow ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Hmm. na ko yow. fi laay ñëw. Hmm. ndax bi ci tukki bi. Hmm. bu ñu masaan defar ay xéewal. di ko yóbbul Serigne Touba. bu yàggee ba teg ko xam nañ koy wax. ah Sida Zimari bi moo ko moo lay wetal gàtt bi mu ne ak kasaa kon di sell na ndax kuy jëfandikoo. Ya, ya. waaye soo koo hmm. bu ko dugal jib ña sidage Malick bañ ne sëñ tubaab yóbbu nañ ko tubaab yi dana ndokk nga waaw lii ku commencé hmm. gis ah. hmm. te doom yëkk ya ak doom wëllu doom yëkk ak doom wëllu mooy doom bàjjan doom la jaay ñuy mag ñi mu ne da ngeen maa war a laaj lu tax ma ne ndokk ñu ne ko si si laaj na la lu tax nga ne ndokk mu ne leen ku njëkkee woon doo dellu si waaye ndéem jël nañ ko dañ ko tal keneen te day dellu si yi sëñ dégg nga si Cheikh Mour Kunta Ndiassane. billaahi wallaahi wa taalaahi Ahmadou Mbacke Kanzulilaahi maanaam kooku dafa tàgg sëñ Tuubaa ba sonn te mooy mhm. mhm. nga mën a tibb bi mbaq comme meew. bu jàkkaarloo moom teg naa ci sama bët kon na. Mhm. ko sëñ Tuubaa jëlee wér yëpp loolu xam nga door la jël na door door na euh, benn ak yoonu boppam sëñ Tuubaa day jàngale ko yoon wi nag dana àgg fa nekk ci àdduna. moo mu a judd. Mm. moo njëkk moo gën a siiw. Mm. te yoon yu bëree bu da nga xool ci Touba. Mm. ba ki dem moo jaay bu doon fukki kër tey juróomi téeméer juróomi te da wees suñu Touba yoonam noonu lay doxee. waaye nag képp kuy murit maa ngi Tijaan maa ngi Laayeen maa ngi Ñaseen. Sëñ Touba jëflante naa yow loo xam ne. ku bokk te tarixe yooyu te gëmmu Sëñ Touba wala nga bokk ci tarixe Sëñ Touba di weddi ñee xamoo dëgg-dëgg Sëñ Touba ku nekk murit weddi leneen xamoo ndax sëñ Sidi Muxtaar mi mag sëkk bi mu yor loolu njëkk a wax xam nga sëñ Tuubaa dana yaa maalikal mulki yaa man jàll am xam il xam jami alwara léegi mm. alwara koo ci mën a génne noonu la dem mm. yow nga bëgg a néew nag il jami almurid yaa ko wax sëñ Tuubaa wax sëñ Tuubaa ñëpp la yemal mm. ñëpp la yéene jàmm sëñ Saliou noonu la meloon moom daa ñëw di sëñ Tuubaa moom ñu ngi koy sant yàlla bi nga xam ne yàlla suturaal nañu ba ñu tegal teg moom loxo waaw man de wax dëgg mm-hmm. dem naa di ko ñuy loolu na ca roon daal may teg loxoom ma tëdd mu na ko wàccal gone gi dafa xëcc na ko wàccal gone gi kooku arrière ma nuyu mu def nii sama loxo findi ma mm-hmm. maa sosub daay rek mu jéem nit maa ngi tuuti. Mm-hmm. ba ma dajale ak biir ja waaxu ba ca moom. Mm-hmm. jàkkaarloo moom ne ko jàpp ne ko sëñ bi nangam la. a nañ ko lool nga sëñ tubaab dañ ko jox xeeb ko. waaye li mu bëgg nga fasal ñu ko ci mooy ñu sax ci sëñ tubaab saa. yàlla leen ko yàlla tànku. Hmm. lii moom mu dugg sama nopp man yàlla ba ma fa jógee ba génn ci bitti nii nga ma def la ma gaa ñi doon def ñi lañ ma doon yàmm ñu lu ne gaa yi ñu ma ko def loolu am sëñ sëriñ Sall bi yoon ba fekk sëñ bi wàcc na hmm. sëñ Alaaji ne ma dem jox ko addiye hmm. na ko joxoon nañ ko sëriñ Sall bi dana maa lu mu leen waxoon maa ngi moom képp ak yàlla muy lekk ñebbi yàlla maa ngi moom bokk sëñ Alaaji Baara maa ngi moom képp ak yàlla ak gàddu ko mu ne lu mu leen waxoon ma ne ko ah, ñaanoon nañ ko na ko dañu bëgg baa rek dafa mun a joxoon na leen tur man kaa ah mun a yam leen foofu ma ci dolli dara lii na ma wax kon man it am naa wax dëgg la xam nga sëriñ bi après danañ ànd xewlu yu mag yi. ah waaw nañ dañu wut ñebe rek. barkeeloo nga ci ànd gi nga a nga ah danañ. waaw ko moom def naa ca Ngore sax ndax ba ba ma pare dana ma ne ko mbàkk kat damaa bëggoon gaa yi ci biti. ma daan génn gaa yi seex doo ko desaan ñëpp am na ko ci àndoon di ko wax sëriñ la wàcc na yàlla yàlla yërëm. waaw yàlla yàlla yërëm. ñu koy waaye daal euh, sëñ bi daal mooy sëñ bi. Hmm. waaw sëñ bi na ci cappaandaw gi léegi sëriñ Xaadim. Hmm. dina ko woon ndeysaan nga kàddu gu mujj. ndeysaan ndeysaan soo ñu ndaw hmm. ci la sëriñ bi ne woon. looy soo ñu ndaw ñi. ngir yow la xam waru du am. weesuwut day. jàmm yàlla ak liggéey. maam Serap Fall newoon na. di leen wax rek. te bis buñu taxawé di fay wax di bàyyi jëf boba lay am lu ma jaaxal sëñ mam sirafal nee du fay wax mu bàyyi jëf nañu top sëñ bi ci jaamu yalla top sëñ bi ci ragal yàlla ga ak bëgg Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam bëgg alquran ba diko ko ci kawb lal tëdd ci suuf taxaw di way nañu roy la waxtu yu juróom nañ ko fonk jaamu yalla ndaw la yalla gën soxla te ku ko jox sa ndaw bu téel sa mag ku réeral sa ndaw nak ci leena neex ba legi yalla sa mag da koy bas mooy ñu ngay gis fii ñu ne ci mbedd yi di def yu xam. Hmm. kon nañ topp suñu Tuubaa ci jaamu yàlla. Hmm. ak nangoo liggéey ndax boo li boo jaamoo yàlla. Hmm. boo liggéey nga texe waaye boo liggéey loo bëgg am. kon donc nañu topp yàlla. Euh, di jàng xasaay suñu Tuubaa ndax ñaan ko nangu mooy xasaay. te képp ku jàng xasaay loo bëgg am man maa la wax loolu. kon nañu topp suñu Tuubaa. xasaay ak jumaa yi. te wormaan mbàkke mbàkke yi te xam ne suñu Tuubaa yi seen maam. tey doomi jaam jaar la rek. ku la matte ni ku liggéey Hmm. worma daal. Hmm. ak naa ko jaam yàlla loolu laa leen dégg waaw. noonu lañ ko déggee naan wormaal mbàkke mbàkke yi hmm. tey tënku ci li mu sëriñ bi digle woon. loolu mooy seen loolu moo nekkoon seen émission baabu mu diina ngeen àndoon keek seen xarit seen soppe seen mbokki taalibe ci bëgg Bamba mu dalaloon ci tay Sëriñ Xaadim Lo Njaay bi nga xam ni macha allah li mu fi wax leer na njariñ mën tëggee na lii yàlla nu yàlla mi dara teewul defal dégg topp barke Sëriñ Tuubaa jërëjëfati Sëriñ Tuubaa jërëjëfati Sëriñ Tuubaa jërëjëf di ko sëñ Cheikh Diwane mu sëñ ma baate. Hmm. maa ngi koy ziar bu baax di ko jox wàccuwaay. ndeysaan noonu la ko déggee jërëjëf ci sëñ Tuubaa jaral am majoral Fall doon foofu la di jaaree nag di yeesal suñu jokk ak suñu jébalu ci Cheikh Abdoulaye wa Xaadimu Rasuul la leen jox dig daje ba beneen waaleykum salaam